Euh, daara day yàgg naa ànd wala yàgg naa toll ci jafe-jafe yi ndax xam nga ne ba ñu amee indépendance ba léegi wala bi ñu ko amagut lii dugg ci wàllu njàng te jëm ci budget bi réew mi lépp mi nga jëm ci ñi nga xam ne ñoo bëgg jàng tubaab ci ñoom lay jëm waaye ñi bëgg a jàng leneen loolu tubaab nag dañ leen wax ne yéen débrouiller leen seen bopp sëriñu daara bi jóg bëgg a boppam dara loolu muy débrouiller nañ ñu bàyyi ko ci di ko seetaan di ko seetaan bañ ak si fii léegi loolu ci jafe-jafe ñu bokk waaye xam nga daara ci boppam xale day toll foo xam ne fii day bëgg a mokkal ñu wax nag xale bi day beqi day beqi mooy wàcc na alxuraan léegi tari ko rek a ci des ba set mu tari juróomi si mbaa fukk léegi nag loolu dafa métti loolu moo gën a métti ci daara ndax pression bi ñu teg xale bi pour mu mokkal léegi day tàmbalee daw léegi su dawee suñ ko bàyyee loolu mu doon bëgg a mokkal nga xam ne teraangay bàyyee ma ngi ci teraa ngay yaaye ma ngi ci ci àdduna ak àllaxira nag teraa ngay ngi ci teraa ngay réew mi sax àgg ci ndax gis nga réew mi ñu nekk ba fi kenn mokkal mokkal tu alxuraan suba lañu suba lañu fi yàlla jëlee ma wax la ko tey far fardu kifaay la bu kenn mokkal alxuraan jóge fi tey léegi nag bu xale bi tàmbalee daw loolu moom xamul li muy def dafa métti rek mu bëgg a dem papaam xam na lim lim def bu fekkee jàng na alxuraan sëriñu daara bi xam na léegi man pexe la ñuy def est-ce que dañ ko yóbbu rëbës dénkaane ko fa est-ce que dañ ko yóbbu ci beneen centre dénkaane ko fa duñ ko man dañuy def pexe moom du daw rek pexe moom nag mooy nañ tiye tànk yi ba du dem rek loolu képp kan mooy jëng toroxu luñ ko dañ koo bëggal lum xamul lum doon gis nga bango gee la fay xew bis buñ ko filmé indi ko dakaar gii kenn dootu dem bango loolu rek la moo tax ñu téye tànk bi tànk tànk bi te loolu kat duñ ko def xale fukki at duñ ko def ñaar fukki at déedéet dañ ko def diir xel mi dal xel mi dal mu tàmbalee tari bi ta tam gën a tax ñu dind ko bàyyi ko mu toog ñun suñu constitution mooy lii lañ tëral ci réew mi waaye nag léegi na constitution bi kon bàyyi xel daara nag moom it ginnaaw constitution bi nee bu leen yalwaan ci mbedd bi constitution bi nee na bu leen tëral xale ci biti waaye nañ leen wutal fu ñu tëdd rek waaw su ko defee mu am benn mesure d'accompagnement bu boo xam daf ciy ànd loo ko mooy kat man mën ngaa tere nit lu munta bàyyi ah Cheikh Mountakha fàttal na ko barki dem te diggante yooyu ratax rek ci war a am mooy ñun daal ñoo tëral sunum réew moom ko kenn moomu ko tubaab yi léeg-léeg ñu ñëw fii ne ñu def leen nangam léeg-léeg ñu ne convention bañ signé woon borom sàngam waaye nag ndax loolu day dem nag ba léegi sunu daara yi dootuñu jàngaleeti dootuñu yarati dootuñu pineeti dootuñu dumaati dootuñu def lépp léegi nag ñu bëgg a yar ñun kat sunu doom yi duñ doom tubaab ay doomi Sénégal lañ doomi ay nit ñu ñuul lañu te ay ay doomi julit lañu def ci ñoom da alxuraan moo gën def ci ñoom leneen lu dul alxuraan. lu xam nga boo ci dégloo ma dikke daf ci wax loom solo mooy am réew dafa am yoo dañ koy sóoraale ci lépp lu ñuy tëral gis nga fii ci réew mi képp ku fi sóor sóoraale woo julit yi sóoraale woo daara sóoraale woo nga daara sóoraale woo eh, sëriñ si loolu ngay dox day dox ba mu yàgg rek nga am problème bu toll ni ñaay boo dul mën a régler te loolu képp ku nekk ci loolu ñi lay conseil war nañ laa bàyyi xel bàyyi loo xel ci loolu mooy daara du fi jóg mukk ñun mënuñu ñàkk mënuñoo nekk lenn loolu ay jàngalekati alxuraan mooy sunu métier moom lañ tànn moom lañ bëgg te moom la sunu borom gërëm donc li koy tax a dox sëñ bi tey lu tax léegi ku bëgg ku xëyee fii bëgg a tubaab tëli bi ngay jéggi jéggiwaat beneen tëli dem ci école bi ku bëgg jàng daara fooy dem fii lañ lay yóbbu nga dem ba kokki 40 kilomètres de Louga wala nga dem ba cil ma xam mbàkkol wala nga dem ba càlle lu tax mënuñoo def fii itam daara joo xam ne ji bu xale bu jógee fii dem fa ñu naan ñu daara moderne ak franco arabe ak nañ ñu defal daara rek jeex na benn sëriñ ñu daara nekk fii ci koñ bi bu weer dee ñu fay ko ku bëgg sa doom jàngal nga yóbbu ko fa jàng na ñooy waaye bu nu bàyyi suñu pexee bopp ah nan nu bàyyi suñu pexey bopp rek nag maa ngi ñaan avocat yépp ñu jóg taxaw ci loolu wax ak mu bàyyi mbokk mi mu dem ca daaram ja ñibbi jàngale jal xuraan maa ngi koy ñaan képp kuy avocat maa ngi lay ñaan nga sol sa sa robb dem wax ak procureur loolu mu bëgg a teg jàngalekat bii ci lii mu def nii lii de du bàkkaar lii de du bàkkaar te it ko mu ñibbi kenn du ko ci yedd kenn du ko ci xas du dëgg nu fexe nag ba daara yi jafe-jafe ci nekk ñu taxaw ci gis nga nii réseaux sociaux yi def sëriñu daara bii foto ko filmer ko sànni ko ci réseaux sociaux yi dañ koo defoon benn gendarme xale jigéen ñi di wax ak moom ci wàllu koromp ko ba nangu ñu foto ko waa ji foto photo woon waxuñu ko dara ñu doon foto lañ song bii yoon nag ñi doon foto songu ñu leen kiñ ñu lañ song yu mel noonu buy am cim réew am réew bu bu bu amee rek wala ñàkk a yemaleeg yooyu rek lu nu dugg suñu borom ne duma ci bokk te lu mu bokkut du jag nanu xam ne réew mi sunum réew a nun ñëpp noo ko bokk am na ñoo xam ne amuñ dugul nationalité lu mën di xew fii rek la ñuy toog kon nag nañ ànd ñun ñëpp ngeen di defar nu jéem a defar te nag ñu ñu ñu ñu ànd yëg ne ñay defar fii ak ñu defar fii benn lañ mbokk mi ñi nga xam ne ñooy jàngale tubaab ay éducateur lañ waaye ñi jàngale daara ay éducateur lañ sëriñ bii ñu bëgg a def loolu lam fa ci ay doom kenn xam nu mu toll lam fa may ci sëy kenn xam nu mu toll la mokkal ci loxoom ba ba ko sëñ Muxtada waxee sampal daara jeg léegi ay téeméeri téeméer lañ ay téeméeri téeméer kon nag ku mel noonu nga jékki-jékki rek fodon ko jàpp rek def ci def ci kaso bi ah loolu de maa ngi ñaan procureur di ñaan avocat yi ngeen taxaw ci bu baax a baax ba loolu ñu teg ko ci suuf ndànk jàmm na ñooyu